السلام عليكم بوك تيليسبكتاتور جيرسي دي تي في كوم سا سوني بك اك كونتونتي لاني اند اك يان تي سن اوتو خبار دي لين تاتال ني ليب لو خامتاني دا فا خيو تي بس بي كوم ني كاي دوغ البس بو ني داني وقتان تي ليغا خامتاني موي ميرو ويرغو يارام تاي جي سور 956 تيست ني خامتاني جاب نانكو رياليزي

27 cas graves batay tey nemmeeku nañ ko ak 3 nouveaux euh, décès Dakar nak que tolni danika nak n'a tolni fu na li nga xamante moy des 5000 euh, euh, cas positifs moy manam juromi junni nit jot nañoo am ci li nga xamante modi Covid 19 bi. li di Dakar Ouest mom nak jot na enregistré lu toll 992 cas Dakar Centre 909 cas Dakar Nord 871 cas Dakar Sud mon moo ci top

cas Diamniadio tamit jot naa enregistré lu toll ci 82 euh, cas yi nga xamante ne lépp ci euh, Covid 19 bi euh, mbir mi nag moo ngi gën a doy waar moo ngi gën a yokk waaye taxul ni nga xamante ne ñoo di sénégalais yi nag daa mel ni dañoo bàyyeeku bu baax ci li nga xamante ne moo di geste barrière ni leen imposé woon mbir moom nag tax na ñi nga xamante ne ñoo di autorités yi ñoom tamit ñu ngi axtu ba léegi ni nga xamante ne ñoo di askan wi ngir ñu mën a jël seen matuwaay ci lu jëm ci li nga xamante ne moo di mbas ñoo doon euh, kaas di ñaxtu ngir ñu fay leen ci li nga xamante ne moo di euh, seeni euh, payoor wala li nga xamante ne moo di tamit prime yi fu mu toll nii nag daanaka ñi nga xamante ñoo di autorité nag jël nañ ci ab ndogal ndax lépp loo xamante revendication la ja trouver trouvé nañu benn terrain d'entente ngir ñu mën a delluwaat fi nga xamante ne ci kër docteur yi. kii di Amadou Ba nekk ministre des affaires étrangères moom nag démb daanaka dañ ko invité woon fi nga xamante ne moo TFM moom nag jot naa ci ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi ndax moom ci boppam nee na lépp loo xamante ne dañ ko doon tuumaal ndax dafa bëgg a wootu ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi nee na loolu yëpp dara amu ci ndax bu ñu fàttali fàttalikoo ci 2012 euh, moom nag jàppale na ko fekk boobu nekkagul sax li nga xamante ne moo di fonctionnaire mooy maanaam amul woon sax liggéey ci biir gouvernement bi te loolu nag wax naa tax képp koo xamante ne sénégalais la war ngaa feddali kóllëre bi nga xamante ne amal na ko ak ki nga xamante ne moo di euh, njiitu réew mi moom nee na nag lépp lépp loo xamante ne acte de défiance la wala lu ñu mel moom nag euh, du ci euh, jàll benn yoon ndax kii di njiitu réew mi daanaka magam la waaye tamit xaritam la ak séddoom ba tax na yenn yi am na yoo xamante ne du ci euh, jot a àgg ak moom ba tey ji ci ay kàddoom nee na ki nga xamante ne moo di Sonko biñ koy tuumaal ne moom la bëgg a jàppale moom nag nee na loolu amul euh, benn yoon waaye day gën a feddale li nga xamante ne moo di kóllëreem ak ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi Macky Sall kii di euh, Seydou Gueye nekk porte-parole du gouvernement en même temps ministre conseiller moom nag jot naa yéey yàbbi ci li nga xamante ne moo di bradage littoral bi mooy maanaam ñi nga xamante ne dañoo nekkee fële ca corniche géej bi jël yoon yum mu leen neexee di ci def lu leen nex mom nak fumu mu toll ni nag daanaka moo leen di artu ndax nee gouvernement bi nak jël ci app ndogal ndax lépp lo xamantene dañ ko fekk fële ci corniche bi fekk ci ay anam yo xamantene légalul ñom nak dañ koy saisir bu léem nag moo xamle ci li nga xamantene modi émission bobu di objection bi ñi amal fële ci Sud FM ba tay ji mom ci ay kàddoom nee li nga xamantene ne ñoo di nguur gi jël na ci ay matuway lépp lo xamantene dañ ko fekk fële ci corniche bi ci ay anam yu lewul ñom nak dinañ ko nanguwaat delloo ko ñi nga xamante ne ñoo di askan wi waaye ba tey jii ni mu ngi xamale ne que ñoom bi ñuy def euh, mbir moom mi la daa fekk ne ki nga xamante ne moo di Macky Sall toogagul ci euh, pouvoir bi ba tax na ñoom si seen jëm bopp dinañ def seen képp lay kattan ngir delloowaat li nga xamante ne ñoo di askan wi la ñu moom. kii di Augustin Senghor nekk maire bu euh, Gorée ak li ñi nga xamante ne ñoo di ay jegeñaalem di conseil municipal bi ñoom nag démb jël nañu ab ndogal ngir amalaat ab coppite. ci place bi nga xamante mom lañ doon wowe place euh, de l'Europe ñom nak euh, fu mu toll nak tuddé wat nañ ko euh, place de la liberté et de la dignité humaine ngir li nga xamante modi xex lepp lo lépp modi ak ak yelefu doomu adama lool nak liko waral du dara lu dul ki nga xamante nak modi noir africain bi nga xamante modi George Floyd bi nga xamante ne nañ ko ci États-Unis ndax ay violence yi nga xamante dañ koy def ñi nga xamante ñoo di askanu euh, Sénégal wala ay africain fële ca bitim réew mbir moom nag tax na seen jëm bopp ñu amal concertation boobu ngir euh, tuddeewaat place boobu noonu place de la liberté et de la dignité. yéen suñu mbokk téléspectateurs yi fi la ñuy ndax képpee ak yéen suñu ëtt xibaar di leen jox dig daje ëlëk inshallah ci même chaîne ak ci même heure laata loolu mën ngeen woy di xibaar ci seen site bi nga xamanteni ne dina affiché wu foofu ci seen bas de l'écran di euh, www.diassigui